salaamaaleykum yow mi si sunu sécurité dalal ak jàmm si vidéo bu bees bi ba léegi ñu ngi si euh, buntu sécurité bi ci formation fondamentale of IT dinañ continuer fu nu yamoon ngi sàkku si yow nga abonné sunu chaîne YouTube bi partage vidéo yi ngir ñeneen njëriñu si ba léegi dañuy continuer euh, comme gisoon nañ bi jàll CIA ak euh, triple A social engineering ak yeneen ak yeneen. pour nag sa machine gën a dëgër comme appareil yi nga yore moo xam si wàllu machine la moo xam ci téléphone ak yeneen ak yeneen euh, pour nga gën a am sécurité yeneen bëgg lool nga am lu mel ne entreprise boo xamante ni euh, boo bu mën di doon daal waaye dina la dimbale bu baax ci yenn yi anti malware tamit lu baax la yaakaar naa am na benn programme sax bu tudd anti malware boo xamante ne pour malware yi am na nu nu mu jëflante moom jëflante bu am solo del def patching update mise à jour fu mu toll mise à jour lu am solo la gars yi deneen mise à jour taxawal fii nii posé vidéo bi dem mise à jour sa yëpp ñu continuer sa password bi mot de passe bi nay dëgër nañ ko waxee woon taxawal nga changé sa mot de bi bu dee mot de passe bu yomb la ngir yàlla bàyyi leen mot de passe si numéro téléphone yi mot de passe ngeen def seen tur yi mot de passe ngeen def ay Sénégal Touba yooyu noonu hmm. lépp looy utiliser sa machine service ba utiliser wul hmm, euh, protocole boo utiliser wul yooyu yëpp désactiver ko boo utiliser wul désactiver ko par défaut yi ñu bëri buy ñëw day buy wàccaale dañ koy désactiver euh, du dul ne da nga ko ubbi si ëpp loolu soxlawul tamit. programme boo soxlawul weer yi gisoon nañ baat bi sa commencement formation bi bu dee yéen a ngi koy fàttaliku supprimer loo soxlawul dalay dolli ay problème rek kon ñu dugg ci vidéo bi tey dañuy wax si wàllu malware yi malware bu ko waxee benn euh, programme la boo xamante ni dañ koo defar ngir moo xam euh, mu sàcc say information wala mu def leneen ak leneen moom programme bu bon lay doon boo xamante ne dañ la koy envoyé wala fexe ba dugal ko sa machine wala yow ñu jox la ko nga dugal ko sa machine ak yoon wu ñu ko mën a pour mu lor la xamante ne malware dafa yaatu lool bokk na si leen ñu gis si biir malware comme euh, virus yi ngay dégg xamante ne dañ koy defar ngir muy tasaaroo ci sa machine moom virus am na lu ñuy wax euh, payload payload mooy partie malware bi nga xamante ne mooy def action bon boobu noonu. pilot mën nañ ko programme ngir lan léegi mën nañ ko programmer ngir bu duggee yàq dara sa machine wala mu supprimer benn document wala mu yàq yenn fichier yi nga xamante ne moom la système bi moom wala mu installer weer wala yeneen ak yeneen gis ne pilot bi mooy def loolu gis na virus benn la ci dañ ko dugal ci biir malware nan ngay fexe mën nga ko am ci ay yoon yu bari nag comme exemple mën naa ñëw dugg si CD wala DVD wala benn clé yooyu yëpp ñu dugal ko sa machine yow nga dugal ko ñu dugal ko foofu nga dugal ko sa machine mu def la lim lay def mën na la ko envoyé tamit nga cliquer si boo si mu wàcc ko sa machine mu def la lim lay def xam ne drive by download la donc koy télécharge rek euh, programme yi démarré xam ne moom virus presque genre yi nii fekk ubbi woo ko li si ëpp mën na laa bañ indi leen problème yi lu dut ay autoroute ak yooyu noonu waaye li si ëpp daal ni ñu ko gën a xam ne li si ëpp laa wax mën na laa boo ko dañ koy ubbi il faut nga télécharge ko euh, ubbi ko mën naa ñëw nag euh, li lay envoyé nekk benn programme bu dee ko xool ba xam comme programme waxoon nañ ne xeet yi muy jeexee si excitation yi ba xam euh, IXE la jeexee mën naa ñëw wala nekk lu mel ni benn script mën naa ñëw nekk mac macro macro bu ñu ko waxee comme sa fiche sa document bu Word yeeg wala sa programme bu Word yeeg yooyu noonu dafa mën na utiliser VBA pour programmer yenn yi pour def yenn yu automatique yu utiliser loolu programmer dara envoyé la ko xam te ne boo ko ubbee sa Word wala sa yeneen programme yooyu noonu di ngay utiliser affaire yi commencé mën ngaa ñëw tamit après mu nekk Word mu nekk virus bu commencé tasaaru nekk simiwaar bi des nga gis ni malware lu am lu bon la virus benn la ci moom am na lu ñuy wax tamit trojan trojan bu ko waxee mooy benn xel la si malware euh, am na benn histoire buñ koy euh, link léegi yooyu noonu xam naa kuy lire leen boo xoolee si internet bi histoire trojan da ko gis waaye fii lu trojan lu ñu doon si jublu mooy yow da ngay wàcce benn programme euh, jàpp ne lu programme bi daal programme bu am solo la man damay jariñ di ko te woote programme bi nekk te mi ngi lay rey lu mel ne nga téléchargé Windows 10 buñ craqué euh, jule ko torrent wala ay Photoshop wala yeneen programme boo xam ne wala ab crack jàpp na yow waaw dëgg la mi ngi lay jariñ mu ngi lay jariñ si mooy euh, ubbi gu nga ko ubbi mu craqué la ko nax nga waaye mi ngi lay lor di envoyé ay xëy na ay information wala mu ngi def yeneen yoo xamante ne euh, yow doo si suuf la koy def nga gis ne moom euh, mën naa gën a problème bu rëy mën na koo indi problème bu ëpp sax léeg-léeg bu virus di indi trojan mën nga ko télécharger mu ñëw nekk benn backdoor si sa machine mooy pirateur bi saa su bëggee dugg dugg léeg-léeg mën na laa utiliser sa botnet yi botnet yi bu ñu ko waxee mooy yow sa machine yi machine yi nga xamante ne moom lañ pirateur dañ koy dajale euh, ay zombie utiliser leen yéen pour euh, di yi ñeneen te loolu musiba la léegi-léegi tamit mën ngaa gis rogueware ak ak scareware da nga koy dégg mooy ay fake antivirus lay doon comme ñu naan antivirus bi télécharge ko nangam nangam nga xamante ne antivirus bi wala ñu naan defal nangam euh, ay publicité soof lay doon yoo xamante ne mën na lay wan naan la entreprise bi entreprise bi nii yow da nga am virus jël ko nangam nekkati woote boo ko jëlee affaire yi daal di commencé. spyware bu ñu ko waxee mën nga ko télécharger comme télécharger benn programme. di ko installé jox ko ndigal mu installé boppam si machine bi wala mu installé boppam te doo ko xam xam te ne boo ko installé waa ji mën na xool di surveiller ah, wala sa machine bi di def dara comme di du xo pass yi ngay dugg ci internet beeg yu demee noonu di ko envoyé keneen loolu mooy spyware xam ne li ngay bind sax yow lu gën a garaaw li ñuy wax kilo ga kilo ga comme yow yaa ngi bind moom muy dajale di envoyé imagineel nga tàppe sa euh, compte bancaire bu du dugg fenn tàppe ko wala nangam mu jël information yi noonu envoyé ko boobaa mooy dee nga ransomware buñ ko waxee muy euh, xeetu malware bu sonal jàmm yàlla yi fi mu toll nii moo xamante ne mën naa ñëwee ñaari forme benn forme bi mooy mën naa ñëw jékki-jékki comme sa machine officielle benn message naan la da nga doon seetaan ay vidéo yu bon moo tax ñu tëj sa machine bi nangam nangam boo ñu envoyé wut xaalis dina la booleeg nangam wala sa machine bi dañ si doon def ay affaire yu euh, jëm si wàllu terroriste yu jëmee noonu boo ñu envoyé wut xaalis si adresse bii ni feeg ay 48 heures dina la booleeg nangam ak nangam di la nax xam te ne boobu yomb naa di léegi léegi mën naa ñëw tamit yor bi gën a bon mooy encrypted data mooy sa données yi nekk sa machine yëpp. moo xam si disque dur boo xam ne dañ ko fixé sa machine bi wala xam boo xam ne day déplacé wu wala boo nekk si benn network yooyu yëpp comme mu encrypté ko mooy yow fichier yooyu moom amatoo si accès moom xam te ñoom dañ day laaj naan la envoyé ma nàngam si xaalis adresse nàngam xam te ne mën ngaa gis yoo xamante ne mën nga koo mm, euh, fekk ci internet bi solution yi am yoo xam ne dina jafe lool xam ne virus bu bon la rawatina mooy bi nga xam ne day encrypte sa données yi nag xam te ne da lay laaj xaalis da gis ñoo xamante ne ay millions lañ ko ciy fay ci euh, yeneen réew yi imagine benn hôpital boo xamante ne li muy liggéey ak yëpp du ko def ci benn ordinateur benn ransomware ñëw dugg sa kon du liggéey te affaire yi day taxaw il faut ñu fay lu mënta ñàkk lay doon bu boobaa mu nekk lu jar a moytu ransomware jàppalante bu baax operating system vulnerabilities mooy failles yi comme ça moo xam si nga yore moo xam Linux Macintosh euh, application yi nekk si biir yooyu yëpp mën naa am ay failles comme nga waxoon ay failles mooy benn euh, faille lay doon boo xamante ne euh, mën naa fexe yow ba comme ce système bi sécurité bi nga yoroon mu wàññi ko kenn mën na faa awe dugg sa machine. wala muy waral sax ay crash ci sa biir machine bi den mise à jour fu mu toll di def patch yi pour moytu exploitation yi benn faille mën na am ci benn operating system ñu génne mise à bi yow defoo ko kii ngeen bokk nga bokk kenn réseau mu def la li ngay def pour moytu euh, malware comme ñu bëgg ñu malware du ñu dal bokk na si nga xam ne mën nañ koo def pour moytu ko rek muy dee jël backup backup moom bul ko fàtte di amal beneen disque dur wala fooy def te yeneen données yu am solo yi saa su la dara dalee nga man faa delluwaat loolu moo jiitu après del def sécurité patch yi mooy mise à jour yi nga xam ne day jëm rawatina lu jëm si wàllu sécurité moo xam application yi la logiciel la moo xam système bi la moo xam euh, machine HP nga yore ak li sa nekk moo xam acer nga yore moo xam iPhone nga yore moo xam Samsung nga yore del mise à jour del am antivirus euh, antivirus Euh, lu am am solo la ndax yenn virus yi mën na koo gis muy xeet yu bëri yoo xamante ne léegi mën na ko capter rawatina bi mu amee virus identification mu nekk loo xamante ne euh, virus yi bu njëkk moom li ñuy gisee virus yi mooy signature yi dañuy xool wala pattern yi wala définition yooyu yëpp ki ñu ko koy wax mooy yow sa virus boo gis am na benn signature document boo gis wala dara am na lu ñu koy signé am na benn signature antivirus yi dañuy utiliser ay base de données yoo xam ne signature yooyu dafiy nekk lu wàcc sa machine day xool signature bi daal leen comparer bu nuroo moo xam ne li virus la bu dee heuristic identification nag léegi day xool comme programme bi nan lay doxee nan lay jéem a def wala ba xam moom li muy liggéeyee nuroo nag ak virus bu dee moom la rek mu dugal ko quarantine gis ne lu am solo la moom it del def on access scan auto dee ko activé muy automatique lu ñëw ci machine bi rek da koy scanner da koy scan ngir xool ba xam am na ay problème wala mun ay problème jël euh, euh, kii tamit schedule scan maanaam nga wut heure boo xam ne saa su jotee scan day indi machine bi day euh, scan boppam pour xool ba xam am na virus su ko dal wala amul su ko dal bul ubbi sa machine bi lu dul lu ma a ñàkk administrateur privilège xam gisoon nan compte administrateur ak compte standard ba ñu créé compte bul utiliser administrateur boo xamul mbiri bul ko utiliser lu dul lu mën a ñàkk boo xamul mbiri fexeel ba sa compte yi tamit am mot de bu dëgër bi si ëpp solo tamit ne looy def ci internet bi rek am si sikk sàkka buñ la envoyé dara sa email xoolal ba xam ki lu ko envoyé moo lu ko war a envoyé laaj ko bu nee waaw moo xam na nga ko envoyé whatsapp wala signal la feneen mu ne la waa maa la ko envoyé nga bokk ko jël lu loolu supprimer booy installé dara xool ko bu baax xoolal fi nga koy xool la tamit yim lay wax mm, day def customization euh, installation mooy installation mooy booy installé ngay xool benn benn di jàll benn benn bu ko def automatique yëpp di jàll ndax mën nga installé loo warut installé wala loo bëgg te installé booy ubbi dara bu ñu la envoyé dara wala ngay clique sax ci benn lien bu ñu la envoyé sa mail sa whatsapp Facebook Twitter feneen ak feneen xool ko bu baax yooyu boo koy def moom euh, yu bëri danga ko moytu bu la dalee nag nan laay def li ngay njëkk def mooy déconnecteel euh, sa fi bi wala sa connexion bi sa machine bi ndax information yi muy envoyé yu demee noonu yëpp foofu la koy awale li ci ëpp bu dee information yi war a sànni la après boo ko defee nga jël sa entreprise xool nag xool euh, document yi nga xam ne yi mu jee dugg nga jëlee entreprise mu def scanner lépp nga xool boo gisee fichier yi nga xam ne moo ko waral nga supprimer ko bu dee ko dugal quarantine nga supprimer ko supprimer fichier bi carrément xëy na léeg-léeg loolu rek du doy ndax mbir mën na ëpp ay loxo bu boobaa moom di gën nga xool koo xamante ne yaakaar nga ne euh, dina ci mën dara xool affaire yi topp affaire réseau yeeg yooyu noonu mu dimbale la si am ñu ñuy wax spam mooy email yi nga xamante ne yow euh, waruñu lu ko woon a envoyé email boobu waroo si woon a jot am na gaa yoo xam ne dañuy dajale email yi di la sànni email bu jug rek moo xam euh, euh, ay affaire pornographie moo si nekk moo xam ay affaire investment euh, di wax ay invest defal investir fenn wala nangam ak nangam wala envoyé ay email yoo xam ne danaa lii mën naa faj nangam lu gaaw wala nangam ak yu demee noonu email yoo nga xamante ne sakkuwoo ko gisoo ko ñu jékki-jékki envoyé la ko ñu koy wax junk mail ba léegi noonu ba léegi spam loolu leen wax xam te mën nañ ko utiliser ngir lu jëm ci wàllu phishing te phishing mën naa ñëw sàcc sa xaalis mën nga ko utiliser ngir tasaare ay virus ay trojan ak yeneen ak yeneen donte email yi yu bëri léegi yeewu nañ ci wàllu côté boobu di segg mail yi xamante ni sa email bi ñëwee dañ koy segg di xool li war a jëm spam yóbbu ko espam bu boobaa yow fexeel ba luñ la envoyé euh, ci mail wala feneen dee ko euh, kii daal dee si am xel ñaar del xool attachement bi ba xam euh, moo xam ex la jeexee moo xam benn fii sa doj gi wóor la wala excel wala feneen ak feneen moo xam benn photo sax wala pdf am sa xel ñaar boo ko wóor sa moom bul ko ubbi sànneel ndax mën na ànd ak hyperlinks euh, mooy lien yi mën na ànd ak drive by download mooy boo ko téléchargé wàcc ko sa mën rek Euh, affaire yi commencé ndax noonu lañ ko programme ni mu amee spam noonu la amee si woote yi ñu koy wax spam muy IM VoIP app bi am na si spam xam te ne mooy tollu spam man léeg-léeg nga jékki jékki jot ay yu lay woo ak yu demee noonu yu mel noonu xam te ne internet ngi noonu ñoo fi nekk sonal nit ñi bu baax ay spam ak ah, spam ak trojan yeeg yëpp ñëw doy na waar software su su xoolal fi nga téléchargé Euh, software bi waxoon nañ ko sa commencement formation bi mooy fi ngay jëlee programme bi nga ngay téléchargé xoolal ba xam vendeur app bi la maanaam euh, kii ko defar moo la ko jox wala keneen ku koy jaayaat te mm, légal na wala koo xamante ne am na si autorisation mu koy séddalewaat di koy jaayaat yooyu yëpp bi mu ci doon mën nga koo jël waaye jekki jékki jëlee fenn programme te xooloo su bi xooloo fan la jógee mën naa indi ay problème yu ngande dal def tamit patch management patch management bu ñu ko waxee mooy euh, patch ay euh, mën nañ ne ay fiches la yoo xamante ne day ñëw remplacer ay yeneen fiches yu fi nekkoon moo xam ci wàllu système bi la wala yeneen application waaye moom day ñëw ngir régler yenn problème yokk sécurité bi wala sax euh, mu régler waat yeneen yu jëm ci performance ak yu demee noonu. nga gis ne euh, euh, Pats moom euh, lu ama am solo la moom it ndax bu saa su dikkee rek am na lu muy réglé am na lu ñuy wax service pack yaa ngi koy dégg léegi-léegi xam ne yaa nga daan dégg ay XP service pack 1 XP service pack de yu mel noonu service pack bu ñu ko waxee ne leen si jublu dañ naan moom am mbooloo la ci ay mise à jour yoo xamante ne defar nañ ko wala ay failles yoo xam ne defar nañ ko dajale ko fenn. moo xam si CDL wala feneen ak feneen du ko joxewaat xamante ne moom lañ wax service pack xamante ne mën nañoo dajale ay fay yu bëri yu ñu defarandoo wala dara def dugal ko si benn CD yow jox la ko saa ngay dem comme bu ma installé woon dara saa may dem di xool euh, fay yu ci am di ko régler benn benn damay utiliser service pack bi rek xamante ne si lay doon day remplacer yenn yenn fii say defal li ma waroon defar yépp xamante bu dee. Mm, exemple bu dee Windows man ngaa def lu mel ne ay léeg-léeg Windows update ah, Microsoft website ba nga ko fa fekk mën ngaa ñëw ñu jaay ko si disque dur bu ñu génn ko def ko ay disque ak yeneen ak yeneen dama leen wax service pack kon loolu moo nekkoon vidéo bi ñu saako seen ngeen abonné suñu seen YouTube bi partage vidéo yi ngir ñeneen njariñu si wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa